yow mi tere ñooñ bëggeel seen bëggeel gii boo mosut maanaay naan ak bëgg yàlla bàyyi ñu ñun buñ demee ba teey suñu xel jógee fii sàngaraay bëgg yàlla jaxasoog ñun dañu xotteeku bul yedd ku màndi ci jamono ba màndee ndax ku màndi seen toggatul ko jëf mm-hmm. rawatine ku màndi ci yàlla ndax dañ naan ko muñal te fekk moom dafa namm yàlla bëgg yàlla ba mënatul boppam mm-hmm. téye boppam ndax ku janoog maanaam mënatina muñ ndeysaan mu ne yow mi nga xam ni yaay xommat ñi bëgg hmm. jugal xommat ñu hmm. te nga wax ak ñun nag ci turu soppe bi noppal ñu waaye mu ne na nga suturaal suñu mbóot ci jamono bi bañ màndee ba ñu yaxañaane duñ ko mën a gis soo gisee dara jéggal ñu ndax waxtaan gi ñuy waxtaanee dégg nga yàlla moo ñuy yëngal dégg nga su dutoon bëgg yàlla ak ñooñ yàlla moo nekk suñ biit xol kon duñ yëngatu waaye dañ leen a bëgg bu buñ leen waxtaanee ñu yëngatu mu ne xanaa gisoo picc mi nga xam ne ñu ngi ko tëj ci kaafam buñ tuddee ay dëkkam rek mu commencé way ndax na mu dëkk boobu bu fàttali ko barabam moom picc ma gis mu commencé way ndax nam mu barab boobu ñu nit bu ñu fàttali ko péeb yàlla ba rek daal di yëngatu mm. dégg nga su picc mi nag su nammee dëkk ba da gis mu commencé way ngir li nekk ci xol bi war a mën a wàññeeku cër yëpp di yëngatu ci liñ mën a yëg luñ mën a mu ne ruuxu ñu bëgg yàlla noonu la mel nam mu aalam ya gën a kawe toujours loolu moo koy yëkkati loolu nag mooy jàpp ne maa li mooy li ma doon wax yëg yàlla gi rek loolu moom mooy moom mooy moom mooy fayda mu ne yaxya bun muaz arrazi daan wax ne hmm. làmmiñ aarifoon yi bu doon yëngatu ànd ak nit ñi comme nuy seen xol di yëngatu ànd ak yàlla nit ñëpp nit ñi ay dof lañ su fekkoon ne lu seen xol yëg rek ñu wax ko koroon nañu dañ naan ñi duñ ay nit dof lañ ndax ñoom saa yu biteel bi wëndeeloo ñi wëndeeloo ku xamul dafa naan ñi ay dof lañ dofuñ wallaay dof nekkul ci ñun waaye dañoo naan kaasab bëgg yàlla daal di màndi dégg nga su ko defee mu ngi wax ci tawhid dafa am benn waaye bu bëgg am nit ñi laaj ko hal raayta ahsana minha minha mu ne qultu hal fi wujudi shay'un siwaha ñu ne ko yow ki nga bëgg ndax gis nga ku gën a ko gën a rafet mu ne leen ndax xam na keneen ku fi nekk ku dul moom yéen yéen a laaj ndax xam na ku gën a rafet moom moom mu ngi laaj ndax xam na keneen ku fi nekk ku mel ni moom mm-hmm. noonu la bëggee woon waayam ji aarifoon yi nu raw noonu lañ mel ci liñ mel ci yàlla mm-hmm. dégg nga su ko defee bàyyi continuer di wax ci fayda bi ne Abdoulaye bul wuldu xaaj al alawi ki sëtu yonentu la mm-hmm. mi ñu wax léegi bàyyi nee na Abdoulaye wuldu xaaj nee na ma faydu bi dana feeñ ci sa loxo. Mm. ci feeñ dëgg waaye du majaas. feeñ ak majaas da nga yaakaar ne yow la ba si kanam nga xam ne du yow. Mm-hmm. waaye nag feeñ ak xaqiqa moom mooy yow la te mandarga yi dana feeñ ci yow. yaa moom dëgg-dëgg. Mm. mu ne Abdoulaye la Hadj nee na ma faydu bi dana feeñ sa loxo dëgg-dëgg du majaas mu ne da nga gis ci xañaan loo xam ne nii kenn mosu koo gis njëkk la ndax ku la gën a rek gën laa bëri ay ñu ko xañaane boo mm. amul ay noonu rek xolaatal sa bopp. boo amul ñu la xañaane xoolaatal sa bopp. defagoo fi dara. waaye mu ne ko dangay gis ci añaan loo xam ne kenn gisul ko njëkk la ba léegi yaa ngi koy gis ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu warda waxuma sax bàyyi waaye nit ñi bu ñu xamee ne am nañu mbooloo moo xam ni wala nit ñoo xam ne buñ ñu xamee ne yow ci gannaaw Cheikh Ibrahima nga nga nga nekk rek bëri yi ñu lay xool daf lay wóor na lii bëri yu tàkk la mm-hmm. daa xañaan bu ñuy wax ak yow daf lay na ñi dañoo soxor ba léegi bañ giñ bañ bàyyi ja boolewaal nañ la ci te yow doo dara lu may ne bëgg nga bàyyi rek lu tax nga bëgg ko parce que allahumma jëmee ci yàlla mm-hmm. loolu amoo dara bëgg ko ci mais da nga yëg ne dañ laa bañaale hmm? loolu dafay feeñ loolu mooy li Abdoulaye Wuld Haaji waxoon mm-hmm. mu ne Abdoulaye Wuld Haaji wax na ma ne yaw yaay yaay ki gën a mag ci tariqa tijaan jaan sa mm-hmm. jamono si sa jamono yaay kàngaamu tariqa tijaan moo tax bàyyi eh, ci jamonoom ci la wax li muy wax moom yaay magam tariqa tijaan bi si sa jamono mu ne Abdoulaye Wuld wax na ma ay mbir yoo xam ne nii sama big mënu koo bind ndax rus mm-hmm. maanaam rus naa koo bind sax ndax mbir yu bari dégg nga su ko defee loolu la Abdoulaye Wuld Haaj seedal bàyyi ne moom mooy borom fayda mm-hmm. kon moom mooy borom ñi ko woote woon yëpp gën nañ ci dégg nga bokk na ci ñi nga xam ne doogu nañ ne faydu bi feeñ na mm. euh, euh, bàyyi na bokk na ci euh, ñi nga xam ne d'accord nañ ne faydu bi feeñ na Seydou Mouhamed bun Cheikh mm. bun ahmad bun cheikh bun muhammad ñu ko doon euh, euh, euh, santalee xasaanu tariqa dégg nga kooku nangu na ne faydu bi tàbbi na mhm. dégg nga bàyyi nangal nu koy grade yu kawe bokk na ci ñu nangu ne faydu bi tàbbi na dégg nga muhammad abdourahman bun xaaj al alawi dégg nga mhm. kii doomu abd abdoulaye xaaj la mhm. moom Mouhamad mi Abdoulaye Wul Hadj mi ñu tuddoon léegi. waaw ah. kii doomam la ñu ñëw ay shérif lañ. Mhm. bàyyi na ko kooku nangu na ne faydu bi feeñ na. bokk na ci ñu nangu ne faydu bi feeñ na koo xam ne ñaar duñ sikk ci wilaayatum. ndax mhm. xam yàllam ak mbaaxam ak euh, mën a jàngam ak xam-xam-xamam Mouhamad bun Cheikh Ahmad bun Cheikh Mouhamad Hafiz. Mhm. dégg bi feeñ na dogu ci am maa ñaari sëriñ yu mag yi hmm. ñaari xalifa yi cheikh Mouhamad Saïd buñ cheikh Ahmad buñ hmm. cheikh Mouhamad Habis ñii surtout Mouhamad Habis ba tey ak cheikh Mouhamad Amin buñ Ahmad bu Mouhamad Hassanu Tariqa ñoom leeraluñ comme nu gaa yi leeralee ñii dañoo leeral nañ ne fay du fay na bàyyi boromam. Hmm. ñii nag moom nangu nañ li bàyyi nekkee. sant yàlla ci li leen jot ci seen jamono ñaanal ko yàlla. ñii ñëpp ay kàngaam eh, tariqa bi lañ. ñoom ñëpp ñu ñëw ñii nangul bàyyi na ko yaay borom faydu bi mhm. ñi ñëw sant yàlla ci fekkee gi ñu fekkee jamono bàyyi daal di ko ñaanal yàlla xam nga ne su keneen bañee du saf mhm. ñii ñooy kàngaami tarixa bi mhm. ñooy sangi tarixa bi ñooy ñi gën a màgg ci tarixa bi buñ nangoo bu keneen bañee du saf moom la waa ji wax ne dem sërif yaa ngi yaa dara nga ca bàyyi yow mi ñuul boo bañee du saf wax na dëgg boo bañee du saf du saf tous bàyyi ne ñii ma la wax nag ñooy sëriñu lislaam ñooy góori tariix bi ñu dul ñoom seen njaboot lañ. Mm-hmm. lii ba mu koy wax ñëpp a ngi fi kat amul kenn ku ko wax ne ko ñii duñ ñun nekkuñ njabootu ñi. Mm-hmm. ne ñu dul ñii njabootu ñii lañ. Mm-hmm. boobu ñëpp a ngi fi boobu sëriñ sëriñ ñëpp a kan moo ko wax ne ko nekkuma njaboot ñi. te ne nee na ñoom ñëpp nangu nañ ne faydu bi feeñ sama loxo man mi waaye nag moom ku suufeel boppam day wax ci boppam yu xaw a kii waaye man loolu ñëpp du ma ko nee na ñoom ñoom nangu nañ ne fayda bi feeñ na sama loxo te ku dul ñii rek njabootu ñii la ci tarixa bi ak ci islam lii la wax ci jamono waaw xam nga ne kenn du woote ak fayda di wax ay nit yuy dund na ñii nangu nañ ne fayda feeñ na te ñii ñooy seen sëriñ te loolu amul ña doon dund moom nekk kàngaami tarixa bi ñoo ko nangul fayda bi feeñ na si sa loxo mm-hmm. dégg nga su ko defee ñeneen ñi njaboot rek lañ taalibe yi nag buñ bañee sëriñ si nangu loolu du maanaam yéeme na daal hmm. dégg nga waaw mu ne ñii nga xam ne ni nangu nañ ne faydu bi tàbb nañ ñoom yàlla ak yonent bi Cheikh Tidiane rek lañ soxloo duñ def lu mooy loolu foo leen fekk ñu ngi tudd yàlla di jaamu yàlla guddi ak bëccëg topp sunu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi leen ayibal nag yow yow nit ku sàggan nga nga xam ne yow tariixa bi mën naa am jàpp rek nga ci xam sax waaye njëriñu tariixa bi dara feeñu ci yow hmm. soo ay balee nii deug dëgg-dëgg man reey dana ma jàpp loolu la bay wax reey dana ko jàpp mu ne danaa wax comme nu shaacir boo waxoon ne isa bil bukhri madir wa yara qussan bil fahati baqil wa qaala suhaali shams anti sagiratun wa qala ad-dujal al-badri dawuka afil fa ya yaa sur zur inna alxayaata zamimah wa ya nafsu jiddi inna dahraka haazilun bu demee ba xaatimu taay nga xam ne kuy misaal tabe ci mu ngi koy misaale maadir naan ko da nay xam nga hmm. maadir mooy kan mooy ko xam ne juróom gi dafa mar mu nàndal ko ci benn dex ba pare ba mu pare dem kabine ci dex ba jaxase ko jël mm, ban fatt ko ngir bañ keneen naan ci maadir noonu la nayee ah nga ne bu demee ba maadir di wax na xaatimu taay dafa nay te maadir xam nga ne mooy ki gën a nay hmm. باقي من قام ني مو غنو لا غات خيل نيب دم نان قص دا فا غات خيل قص موي كي نيك و اما بعد واو مو نيك واخ آه. من فران الى فران كو فصالهم بو ديمي با باقي نان قص دا فا فصاوت ها آه. تا باقي مو غنا غات خيل نيب دا موم يا خمس جن بيتي ñu laaj ko fukk ak benn la ko jëndee ñu laaj ko ñaata nga ko jëndee xam nga mu mu tàllal juróomi baaraam ak yeneen juróomi baaraam ak làmbañu ne fukk ak benn laa ko jënde picc ma naaw kooku ko gën a gàtt xel bu demee ba bàqil moomu naan xuss dafa gàtt xel mm. bàyyi na bu demee ba biddu suhaa nga xam ne lu ndaw la naan jant bi dafa tuuti mm. bàyyi nee na bu demee ba lëndëm tërës di wax weeru badar naan ko yow amoo leer mu ne bu demee ba lii am dee bee boo nga ziyaare ndax dund bi dara jaratu ko maanaam dund léegi nit kuy dund nekkatut fi mhm. bu demee ba ñu suuf suufi ñi di ayibal ñu mag ñi foofu dund amatul mhm. mu ne yow sama bakkan bi suuf boo demee ba gis lu mel nii góorgóorlu xam na sa jamono dafay caaxaan mhm. maanaam jamono bi léegi caaxaan dafa nekk bu fi caaxaan nekkutoon nit ñu suufi ñi duñ taxaw di dal ci kaw ñu mag ñi hmm? dégg maanaam ñii buñ see buñ seedee faytu bi keneen koo xam ni daanaka yow ñii tolloo leen ci jatwee taxaw naan ñii dañoo xamul wala a ak nangam wala di kii dëgg dëgg mu ngi mel ni maadir nan taay aati mu taay dafa nay mm-hmm. mu ngi mel ni baqil nan xus dafa lottu dafa gàtt xel mu ngi mel ni suxaa naan jant bi dafa tuuti mu ngi mel ni guddi gu lëndëm tërës naan weer bi dafa suux mm-hmm. dund boobu dafa mel ni dee sax ko hmm? mm-hmm. kon ñii ñëpp seede nañ ne fay faydu tijaan feeñ na ci loxo Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci la feeñ te faydu boobu it xam na boromam su ko defee mu ne qultu wax naa law kaana bu nekkoon kullu aalimin bépp borom xam-xam jëriñin bu màgg sharifin ku tedd nabirin ku foor azimun bu màgg-màgg indilaayi fa yàlla wa inda ibaadilaay ak ci jaamu yàlla yi saafin ku sell lillaahi ñeel yàlla mun xaasin ku aji jéng ilay jëm si yàlla nafaain ku aji jariñe fii ci yàlla kasiri dalaala ku bëri lu muy tegtal ala yi ci yàlla gazir ulumi ku bëri xam-xam wala barakate ak barke maa dafa bëggoon su fekkoon ne wëlli yàlla bu jug woote faydu faydu topp la korom hmm. faydu mën naa bëri borom hmm. parce que nit mën naa dem ba yëg ne mooy borom fekk du borom ne ku màgg iddaa woote na andoona moom saahibul mooy borom faydu bi li haajil malaaq bi ngir yidee daraja al mawrusa yam donn wal muktasab ak yam fàggu am na daraja yoo xam ne ci ay maamam la ko jëlee am yoo xam ne dafa góorgóorlu ba am ko hmm. ne nit ku màgg rek bu xoot euh, bu ne mooy borom faydu bi wa sakkanat mu dal al faydatu faydu bi ñeel ko wa taslaman hommatum لكل من ياخذ نيل كيب كوي جيل زمامها بومم وتبعت مو توب كو ايشا مشا امامها كرمم لا صدقه كون دنا دغ دعاوي هؤلاء ووتب غاني الاجلا يمغ في دعوى الفايده تي واتف سو فيكوني دال كو ماغ كوني بول ما بروم فايد فايد بي توب كون ني نيب من يونيك بروم فايد واي نك دانيو اتي سي بن كوتي كان موي بروم فايد لول ليرال نني كوكو بايلا radiyallahu anhu léegi fayil bi ci boobu moom mooy wax moo moom kan mooy boromam waaw kan mooy boromam fayil bi ci boobu moom dafay wax kan mooy hmm. boromam ndax boo ko xootee te nekkoo ko yow yaa wax waaye woon danaan teg mandarga yi dara du ci feeñ hmm. waaye bu ko nekkee nag mu ñëw jébbalul la bu la jébbaloo rek mooy wax na ne yaay boromam hmm. moo tax ñu woote ñëpp faydu bi nee leen du yéen faydu bi ci boobu mooy leen du yéen bu bàyyi wootee nag faydu bi dafa ñëw ne ko yaay borom yóbbu ma fu la neex moo tax ci commencement mbiram mu ne leen fu suuf si hegg rek sama féetu bi dana si hegg mhm. kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal foo mu tasaaroo te si jamono boobu kat am na ay kilifa waxuma la kii ay kàngaam yu mag mhm. yoo xam ne nii fayda moo leen traîné raw ñu ngi jug pour dàq nit ñi wëris ko bàyyi wax benn waaye ci taalibe mi tudd na turam sax ci jawaara saay ne ko maa ngi lay xoo ñëwee nga jëm ci faydu bi woowu ma la nag bu bëgg fayda bi tasaaroo fayda bi dina tasaaroo ci kàttanu yàlla ak ak ak pexem waaye dama laa xoo ngir yërëm la mhm. am na ay nit ñuy jug di def ay pexe di woote ay nar di sos ay sos ngir fay leer ak yàlla gi bëgg fayda bi taxaw waaye fayda bi kenn mënu koo taxawal ku jéem a dàq nañu ci fayda bi da ngay dàq nañu sa bopp waaye doo dàq nañu ci fayda bi mu loolu boo xoolee danga nga ci gis da ko gis sa bëti xol hmm? dafa xam ne moom mooy boromam fayda bi jébbalul ko moo tax moo xam ne foo mu tasaaru mhm. deng nga waaye nag su fekkoon ne ku woote rek bi jébbalul la ñoom ñëpp dañuy wax dëgg li xusuul nak ngir am giñ am xalal af de ci ngëneel wala masiya ak ak ak ndollal masiya mooy may ñoom ñëpp yàlla may na leen wala wara waraim ngir seen ak sàmm waxee siim ak seen ak xiir ala al xaliqati ci rocceeku minde fi min xafril jahli ci paxam réer wa taxalufi ak des gannaaw ñii ñëpp bëri na ay wëli yàlla yoo xam ne seen yitte mooy nañu jugee ci réer jugee ci des gannaaw jugee ci mbon jugee ci sàggan dem ci mbaax hmm. dem ci ragal yàlla hmm. xegg nañ ci maqaama foo xam ni dëgg-dëgg méritoo nañ nekk borom faydu bi waaye dañ koo doonul moo tax faydu bi xamatul ñeel leen su fekkoon ne nag ku baax ne maay borom faydu bi muy yow konoon ñi ñëpp seen woote day nekk dëgg hmm. walakin waaye nag laa budda du mën a ñàkk min samaayin kalima ñi déglu baat bi mine tarafi saani ci xaaju ñaareel ba xam ne xukk mi balaa ñu attaale ci moom xool nga waa ji am na am na ay jikko yu tax mu mën a nekk borom faydu bi déglul faydu bi ba xam ndax danaan la kii mooy sama borom wala déet bu dee mooy borom mooy mandarga yi feeñ mu joxe si exemple bu leer nañ di wane ne faydu bi su borom xootee lay ñëw waaye su borom xootuwul fa mu nekk lay lay taxaw mu ne al faydatu faydu bi ci moom taarifu xam na saaxibaa boromam wa huwa ta borom faydu bi yaari waa xam na faydu bi faydu bi xam na boromam borom faydu bi xam na faydu bi fa shaatu taalamu anna ziba yakuluha wa zibu yaalamu ma fi shaati min taybi فشاتو غاتغي تعلم قمنا ان زيب نتل ياكلها مكلك وزيب تلغي يعلم قمنا ما في الشات لانك شي غاتغي من تي بنتي تلبي غاتغي خمنا تلغي داف كوي لك واي تلغي خمنا لا غنا نيا سي يابو يابو غاتبا مام تلي خمنا غات غات خمنا تلي فايد بي خمنا بروم بروم فايد بي خمنا مبودي نيك سي فايد فطيور اربع نينتي بيتيه مثال مهم لا جوخي التي بها خمنا اختارها تنك الله يعلى لعملية إدمئنان قلب سيدنا إبراهيم غير لغي درك سن قول سيدنا إبراهيم يمكن دنا جابني الاستدلال تقتل بها تموم على أن الفائدة نفيد بلا تأخذ بجاب إلا صاحب علومي برمو إبراهيم عليه السلام دفعون يعلى يعلى ونما مني دكرة ويدة يعلى نكو جرن يندي تشنغ فنيتلين رأيلين دبلين بنمو فنيتلين nga def leen ñeenti xaaj xaaj bu nekk nga teg ko ci benn doj nga téye bopp yi jëmm yi ngay jaxase téye bopp yi jaxase yàpp yi nag mu jël ganaar ak tan ak baaxaañ ak piccam taawus rey leen jaxase seen yàpp yi bu nekk mu def ci jaxase yàpp yi jël yàpp yi def ci doj jël fe téye bopp yi léegi su téye bopp tan su ne tàn la nekk yàpp yàpp tan bi ci doj wi ak ci doj wi ak ci doj wi lépp day jug ñëw ci bopp ba mm-hmm. yàpp baaxaam bi du ñëw de bopp tan bi moom buy xoote rek la bokk ci tan bi yëpp wuyu si ko ah. bu téye bopp taawus bi bu ne taawus la bokk ci yàpp taawus yëpp naaw ñëw mm-hmm. taawus bi dekk bu dee ganaar séq la bokk ci yàpp séq bi ñëw bu ne tan la bokk ci yàpp tan bi ñëw mu ne nag su fekkoon ne bu téyee yàpp tan bu téyee bopp tan ne tan seq gi day ñëw baaxaañ bi ñëw taawus bi ñëw kenn ku nekk xamoo kuy sa borom hmm. su boobaa ku nekk mën naa wati fayda waaye ndem lu nekk dafa am boromam nga xam ne ni bopp tan bi buñ ci xootee tan bare la bokk yàpp tan bi rek mooy ñëw hmm. naka noonu faydu bi borom bu ko xooyee mu ñëw bu ko borom xoo uddu ñëw waaw ndax bopp tan wa boo xooyee yàpp tan yàpp tan ñëw waaye boo yoree bopp ganaar ne na nga xoo yàpp tan yàpp tan du la xuyu si uh-huh. foofu bopp tan bu lay téye xoo yàpp tan yàpp tan ñëw ndax yàpp wu nekk xam na boppam faydu bii noonu la mel boo du borom nga xoo ko du ñëw waaye boo dee borom booy xootee mu fekk si la ndax faydu bi xam na boroom comme nu yàpp yi xamee seen bopp misaal mu yéeme la من خال وانا الشيخ سرين بن رضي الله عنه يالله يالله جرم في ريال تفسير في ريال تفسير باين لنا قال فخذ أربعة من التي يالله فو إبراهيم نكو جيرو نينتي بيتي فصورهن إليك نغا دغترين خذ جل أربعة من التي نينتي بيتي أديكو غنار ونصر أكتن والغراب أكباغن والتاوس أكبتن تاوس بيتي مرفر اقتلهن رايلن وقتعون نغا دغترين واخلد لحمهن نغا جخسي سين يابو بريشين أنك سين دقي دنقي لي بيامل واجمع ذلك كله نغا رجل yàpp yeeg dunq yeeg lépp nga dajale ko mais nag bopp yi da koy téye suma ma nga def alaa kulli jabalin si doj wu nekk min jibaali ardika si doju suuf minum na si ñoom jusaan ab xaaj doj wu nekk def teg ci dara ci yàpp xam nga yàpp yoo jaxase dëgg-dëgg nag doj wu nekk yàpp benn euh, picc mën na cee nekk mm-hmm. minum na si ñoom jusaan ab xaaj su ma doon nga téye bopp yi su ma doon na nga wooleen boo téye bopp tan wool tan danga gis lu bokk ci yàpp tan dafay jug ñëw fekk si boppam yaa ci nekk dañ la dikkal sàngaan ci lu gaaw <laughs> waalam xamal an na laa ne yàlla azizun aji noor la xakimun aji xereñ la fii sànni si jëfam faa xasa mu jël taawusan taawus hmm. wa nasan ak tan wa xuraaban ak baaxaañ wa diikan ak seq wa faala mu def bii ne si ñoom maasu kër lañ tudd wa am saka mu téeru usuuna seen bopp yi xendahu hmm. fa moom wa daawun na mu xoo leen fa tataayaral mu naaw alajzaaw xaaj yi ilaa baax daa jëm ci lenn la bokk si yàpp tan ñëw ci tan la bokk si yàpp seq ñëw ci seq lebok siap baha ñu ci baha lebok siap tawus ñu ci tawus hatta takamala ba jëm yi mat hmm. suma akbarat ñu jublu ila ra'si ajam sen bop fa qamu mu ji tayran di bicc hmm. lebok siap tan yeb dafa dajilo baha nonu ganar nonu tawus nonu ku nek jug dem sa bop ndax ku nek xam nga ban bop nga bok nga bok su fekkone nak lu di wote rek di borom koroon kum neex woote lu la neex te koroon fii bu tan woote yàpp yi ne mën na koo fekki waaye ndem lu nekk dafa am borom soo wootee mbir mbir mi boo du borom màndarga yi moo du feeñ ci boo dee borom nag mbir mi dalay wuyu si màndarga yëpp feeñ ci yow ne fa la on kana bu jàpp ne ana asla di ki ne cëri ganaar laxman moo xam yàpp waaye zaman ak yàq warisan ak dunq te talaa amu dañuy tappaloo min jadidin ci lu bees hmm. wa taaqus ñu jël raasa taawus bopp taawus bu fekkoon cëri ganaar yi mën ñoo dem ci taawus hmm. wa taawusu taawus yaaqusu man naa jël raasal xuraa bi bopp baaxaañ yàppi taawus mën naa dem ci bopp baaxaañ su fekkoon loolu mën naa nekk hmm. la am kana dana jàpp ne li kulli faadili ñeel képp ku am ngëneel mu barazin bu raw an yakoon mu nekk saabi la fayda tijaani borom fayda tijaani waaye mënu nekk walakin nal jusatu waaye jëmm ji laa taaxusu du jàpp illaa rasa lu mooy boppam mhm. wa rasu bopp bi laa yen butu du sax mukk illaa fi ti lu mooy ci jëmmam mhm. moo tax faydu bi du wuy lu mooy borom moom borom faydu bi du du dara du cëram lu mooy faydu bi war waral ba gars yi bu wootee échec ba bàyyi wootee mbir mi toog mhm, ndax daf di boromam xad alima xam na kullu unaasi nit ku nekk mashrabum seen naan ku nekk xam nga sa naan waay ku nekk xam nga li nga moom mbir yi yaxtasu bi rahmatihi man yashaa yàlla mooy jagleel yërmaanim ku ko neex comme nii rek su fekkoon ne ku woote faydu bi ku woote dara di boromam kon monsieur den mutu kazab mën naa nekk yonantu ndax woote na ak yonantu waaye ba yonantu bi woote yonantu yonantu gi topp na ko monsieur den mutu kazab moom woote yonantu nag seytaane rek ko topp parce que daf du boromam loolu du boromam mënoo koo jël ci yàlla parce que mbir yi nga neelu yàlla yàlla jagleel ku nekk lu ko neex loo moomut boo ko wootee da ngay sonn waaye maqaam wu du la fekk si waaye nag booy borom maqaama booy woote maqaama bi topp la noonu la mel noonu la eh, am na kale boo xam ne bàyyam ko baax la woon hmm. bàyyam daf ko denc doon benn nag yóbbu ko ci benn gott muy àll sànni ko fa ne ko naa ko hmm. yàlla ibrahima bu sama doom ji màggee nga jox ko hmm. foofu ku mënoon dem na nag bi kaay du waaye xale bi ba mu màggee dafa dem ci gott ba rek xawoon nag wi nag topp ko parce que mooy borom mbiri yàlla borom rek ko mën a xam moo tax fii ku lay wax naan faydu bi nii la demee nangam ak nangam nangam xam nga léeg-léeg nit dana nit dana taxaw ne faydu bi affaire ay complot la diwa ko moomoon ñu complot nangam nangam mbiru yàlla nan la si complot yàlla nii la demee alquran boo waxee ne yaxtasu bi rahmati man yasha mooy jagleel yërmaandeem ku ko neex ku yàlla jagleel mbir sañoo koo bañ sañoo bañ jël rek nga mën a def mhm. loolu sañu laa bañal topp la rek la mën def noonu la demee waaye yàlla du jël mbir jagleel ko baaba ñu ne Ahmad na na négocier ak baaba jëm koo mhm. kii parce que baaba nangam nangam mhm. yéen yéenay fal wala yàllaay fal yàllaay fal waaw yàlla daf ne ahum yaqsimuuna rahmata rabbik ndax ñooy séddale nga yërmaande yàlla déedéet ndax nu xasam naa baynahum maichatahum fi l xayaati dunia ñun ñu séddale dund bi ci àdduna ñooy séddale may yi ci yàlla borom yonent gi xam nañ ko moom rek lañ koy jox allahu alamu haysu yaj'alu risalati yàlla xam na fan lay def ak yonentum te fu mu ko def kooku sañu koo bañ nan la yàlla sant mission nga naan maa bañ hmm. déedéet na sant mission nga ne ko yàlla falal mu dimbali ma ci mission waaye yàlla jëlu ma naa ko jox diw hmm. yàlla kum fal xam na lu tax xam na ne matee nga ko te man nga koo doxal hmm. mais yàlla du fal koo xam ne ay gàllankoor day am ba du ko doxal yaa yonent bi waaye balaa ngaa balaa ñu laa xebal gàllankoor xam nga jugee fi xam nga ne loolu xëyru maqul hmm. moo tax faydu bi du dara lu mooy ne bàyyee boromam jeex na hmm. loolu mooy wax ji moo tax ku ko xootee rek am gàcc bu dee narkan nga boo dee nit ku dëggu da nga dem ba xam ne du yow dégg nga parce que doo boromam bàyyi nag su ko xooyee mu fekk si ko te bàyyi ñu def lu mooy xoote ko bàyyi ak yërmande bàyyi ak lewatam mhm. bàyyi ak xormam bàyyi ak respect bàyyi bëgg lu baaxam mhm. bàyyi ak bëgg bàyyi ak bëgg juboo bàyyi bëgg jàmm mhm. bàyyi ak ak fonk ay magam bàyyi ak respecté ay magam su fekkoon ne du borom faydu bii coori yim dund yëpp du ko dund ndax kenn gënu ko bëgg kër baayam waaye dafa mission dafa am natt man dafa am mission boo xam ne mënu koo ñàkk doxal moom mënu ci dara ndax yàlla ko sant moo tax lu mu laaj jar na ko bu ñu doon xotti yere yaramam di ko daggati di ko sànni jar na ko waaye su fekkoon ne du borom faydu amul mission koroon mu ngi ci koroon mu ngi ci euh, ron baayam ndax luy nit di baax baax moo la gën a baax. ko am xel moo la ko ëppale. dafa di mission. kon loolu moo di euh, suñu daf tey bi incha allah rabbi liñ ci jàng daal mooy faydu bi bàyyi boromam moo tax mu wooyee wuy na ko mm-hmm. moom it. xam na ne mooy boromam moo tax mu sañ wax ne dana yegg nangam ak nangam ak nangam nangam nangam waaw parce que xam na ne mooy boromam mandarga yi dana feeñ. Mhm. waaw euh, faydu bi bu doon taawus. Mhm. bu doon yàpp taawus la. Mhm. bàyyi bopp ba. bu bàyyi wootee rek mu ñëw. waaye bu keneen xootee tan la ko wuy bàyyi bopp ba bàyyi ci taawus gërë lay dugg maanaam ci faydu gërë lay dugg waaye du dem di dugg ci boppam tan hmm. in uriidu l-islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib